kilifa yi. Père Balla Pikine jël ay combat Boy ñaa jël combat Eumeu Sène jël combat Père Balla loo gisee combat Eumeu Sène bi ñu ne risque la wala du risque. Eumeu Sène euh, ak euh, Modou Lo non xam nga ñoom ñaar bëri nañu Eumeu Sène juum dajeeg Bombardier am ci ndam mu nekk mission boo xam ne waa Pikine ñoo ko chargé. il doit remplir cette mission jusqu'au succès, jusqu'à l'épuisement de toutes ses forces, pour qu'elle en coupe encore. Donc il doit soutenir sa volonté de vaincre l'Union d'Amérique. Voilà, mon dernier day mu la déjà on s'est parlé. père. à la Balla Gaye rek bu nga agressé ko bu daan ko xam lu ma lu ma tontu nee ma père dama ragal bu lamb ji jeexee ñu porté ma plainte. mais père mu naan laajte beneen combat diggante Boy Niang ak Lac de Guiers 2. xam nga Pikine début ça ñoom il sont en cohésion il sont en adhésion amul seen biir ay réaction de position donc Pikine te mooy joué donc ñu ngi ñaan yàlla waa Pikine am ndam Boy Niang am ndam. mais Boy Niang la da du rëcc si Boy Niang. non xam nga Boy Niang dafa gën a échelon yi catégorie par catégorie ba egg ci RHA donc combat bi combat jéggi siraat la bu daanee texe. kon tey boo doon digal Boy Niang si combat bi loo koy digal. non kooku c'est un secret professionnel kenn du ko divulgué ci ay télévision. mais ñu ngi la jaajëfal.